lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen ko yéeral batar di dikk ak ñun si aju màkka ren bii nga xam ne daanaka si ay jafe-jafe la tàmbalee nag ndaxte avion air bu Sénégal si boppam moo daal di rate nag mën na la deuxième vol bi tafiy wàcc na lu si ñaar téeméer ak juróom ñetti fukk si ay pèlerins yi nga xam nii dama ne la si mbedd bi la ñeen wàcc comme ça nii rek te moon tey de te gis nga ñoom pèlerins yi ñoo waroon dugg si vol bi nag ngir dem sa duwaanu màkkatal mu karama waaye dama la gis nga air bu Sénégal avion bi si boppam moo rate li nga xam ne mooy départam rek l'observateur du ñu nag mën na la ñoom ñooy supporter li nga xam ne mooy hébergement hôtel de waaye jamono ji la ñuy sàkku koy dëgg mooy ñu daal di leen indemniser les échos yéen a kaay bi ne ak juróom fukk si ay pèlerin daal di leen wëcc si mbedd mi rek xoolal lii ndaxte ñaareelu vol bi si boppam mujjul départ mën na la waar moo taxit ñoom pèlerin si boppam ñu leen logé si diggante King Fahd Place ak hôtel Onomoore les échos yéen a kaay ne moom tey de moom ministre El du am benn jafe-jafe zéro problème te gis na ñoom pèlerin si boppam gannaaw ba leen fi vol bi wàccee nag te vol bi départul ne ni ñu ngi jafe-jafe rek moom kay boo bëggee dégg dëgg jàppal ne vol bu njëkk bi nga xam ni moo waroon dem sa pèlerinage à la Mecque kon kay vol boobee si boppam dafa arrêté départ am te gis nga air bu Sénégal avion bi moo wàcc nag lu toll si ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar si ay pèlerin rek man na a départ man na la coow lu mel ni tulle rek man si aéroport bi rek ndax waaye gis nga bu dee Abdoul Aziz Mbaye bu DGP ne kaay ma wax la benn affaire nag gis nga mesure si war yëpp jàpp ne délégation bi jëloon na de ndax dañoo dem ba mujjantellement bi ndax bi si boppam bi de daal di xam ne moom mooy si duwaanu PDS parti démocratique bu sénégalais L'As quotidien wax na si turbine yéene kaay bi daal na siy wax rek réew mi daal na siy dikk wàll lu leen dal waay dama ne bàyyi kon kay dañu retourné si laas laas ne gis nga boo bëggee dégg dëgg ab coppite moo am si diwaanu PDS changement waaw waaw si jigéen ñi la de ndaxte président Abdoulaye Wade si boppam moo daal di tabb ki nga xam ni ma ne la moom moo di Fatou Sow si biir PDS mu daal di jiite président national des femmes lii kay mooy li coow li laas nañu gis nga war a saar kon kay fi mu ne nii ma ngay xataraayu ndax fi mu ne affaire yi meexu ko de mu ngay accusé nag tey dut baaraam tuma moom moo di Wade fils ak ki nga xam ne mooy Saliou Dieng waaw turbine yéen kaar ne ko kay gis nga boo bëggee dégg dégg Woré daal nay démissionné li nga xam ne moom di PDS déet déet déet déet bul def ni ni waaye bu sa yemoon mu neex ndaxte Woré Sarr mu ngay def ay révélation yu doy waar de nee na gis nga Karim Wade moo nekk si ginnaaw lii yëpp lii yëpp Karim Wade moo ko waral rek waaye gis nga man Woré Sarr dama ne la man ab jigéen bu dignité laa de mën nga maa rey waaye mënoo maa gàcceloo turbine yéen kaar ne gis na waar de réew mi na nag te jigéen ñi fi mu ne nii Fatou Sow mooy seen njiit de lii kay moo waral moom Woré Sarr fi mu ne nii daal di yàqale ab meram de mer ba fut la def ci décision bi nga nii mën na la moom maître Abdoulaye Wade daal na koy def révélation yéene kaay bi nag gis nga moom Woré Sarr daal nay démissionné seen waanu PDS waaye la mu wax mooy gis nga Karim Wade moo ma bëgg a tul waaye jàppal nag mën nga maa rey mën nga maa fàtt waaye mënoo maa gàcceloo mënoo maa rusloo de kon na leer de baax na rek direct gouvernement bi yëgle kaay bi di ñu xamal ni Pape Moussa Sow directeur de Tribune ak Mouhamed Gueye mana la bu quotidien waaye ñoom ñaar ñëpp daal nañ leen di ñoom ñaar ñëpp mu njëleen leen baa ñu ñibbi jàmm ak jàmm kon que Tribune yéen a kaay ne ko boo bëggee dégg dëgg daal nañuy libéré nag suñu directeur de publication bii rek waaye kontaan nañ dikki démb de moo tax gis nga moom Pape Moussa Sow dikki daal nay gërëm tey sant nga xam ne ñoo ko doon jàppale Tribune yéen a Oustaz Sow daan nañ koy libéré te mu jën dara kon koy sant rek ndax coow fin waaw waaw si du ko tay la tay tay la tay nag tay la tay nañ ko wax tey mooy le premier juin yëglekaay bi ñu xamal nii tey jii mooy bésub set setal bi nga xam ne moom jiiti réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal na koy woote ana la sa réew mi gi nag fépp nag ne fépp set lii kay moo tax yëglekaay bi ne ko Diomaye en opération set setal national waaw ana set lu baax la waaye nañu setal dëkk bi yëpp na dëkk bi dëgg Moussa Bala Fofana na ministre bi rek fi mu ni gars lu ñu génn saa matukaay bëri na te takku na ngir rek setal dëkk bi rek waaw waaw kaay bi dañu xamal nii gis nga lu toll si cinq cent agent daal lañ leen di mobiliser rek ma lu toll nag si trois cent unités motorisées ñu daal di leen di génne rek lépp ngir se bi rek mille cinq cent agent boole kaak cinq cent unités yoo xam ne ay unité de nettoiement la dee dix pelle mécanique ak i trois chargeurs mën na la arsenal bi si boppam la ñu mujjee dajale génne lépp nag daal di koy mobiliser lépp nag ngir setal dëkk bi ndiki tey si gaaw gi benn fan si weeru juin si atum 2024 waaye waaw waaw na dëkk bi seet waaye sama gars yi ñu desandi ba tey ak journal bii di source a tadi koy jeexalee rek mana la lu doy waar te yéeme moo am si duwaanu direction de la soldu mana la si ab audit boo xam ne dafa am si diggante atum 2017 jàpp atum 2022 gaa ñi fi mu ne nii dafa mel ni dañ doon caaxaane réew mi di ko caxat-caxatee kopparu Sénégal ak i alalu Sénégal rek sa comprendre source a di ñu a rek waaye gis nga boobu bëggee dégg dëgg mën naa gis nga audit yi ak rapport yi moo jéggi dayo ndax saay boo xëyee wala saay boo yeewoo rek nga dégg ay scandale ak lu bël si réew mu senegal mën na la gis réew mii la ñu or a ordre zevelat su ko defee rek mu set wecc <laughs> scandale bii bàyyi ma daw rek ba altine ak jàmm ma leen di ñaanal kenu end jàmm rek incha allah jaa ngeen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 Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps